ak waa kër Mbusoobe ak kilifa yi ñi nga xam ne wóllëre gu gu yàgg ak yàgg ànd kenn ku ne am cofeel ci daara ji moo tax ñu ñëw fii seex yëpp rek mel na ni kenn desul ci seen cofeel ci daara ji Sarxee jërëjëf lu ñu xewle yëgal ñu ko nuyu itam lu ñu xewle yëgal nag li ma doon lim léegi ci daara yi euh, seq nañ ci ñaar téeméeri million indil la ko waaye ñaareelu xaaj bi tàmbali yéen a may dégg ma di leen dégg xamante ne ku dese la nga dese moom day moom ngay tàmbalee sa ñaareelu xaaj ñun nag ñi matal sunu ñaareelu xaaj te tàmbali na mën naa maa waxit it ne cant gi mën nañ cee dolli màggal gu mag gi nu jëm sori nañ ci jërëjëf euh, mbàkki soxna yi tamit seen taxawaay rafet na ci lool jataayu lislaam moo ni demee moo tax ñu nekk na waaye na ngeen toog na leen wóor na sëriñ bi moom mooy yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yushaahidu ma taxtal ak kidnaate fa ngeen ne fas leen di ngeen fas sëñ baa ngi leen di xool dina leen dina faj aajo yëpp dara jëy sëñ Touba waaw. rek laa ci dolli muy li sëñ Touba waxoon sunu yonent sallallahu alayhi wa ni la Mbàkke gaañaa ngi nii kenn yooyu kenn lappul indiwuma sax ku xibaar. waaw ni ko sëñ Touba waxee rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk lakk rujo yi maal jumo yi. bi xayri jox yi wala xataa yi moom gëm na ne ñi ko booleel ay jàmbaar lañu suñu biir nag kenn du raggalante mbag mbagg ak sa morom ndax sëñ Ablaat moo ñu waxoon nañu bu leen rusante bu ngeen rusante day yàq seen ànd moo tax soññante bi léeg-léeg koo xamul sax mën na laa jaaxal waaye dër ak cant rek la ak bëgg ñu dox góorgóorlu liggéeyal sëñ Tuubaa li tax léegi li sëñ si di wax nga xam ne dem na ba li muy tudd tudd Hizbut Tarqiyyah mane yii ñii ak man mii li nu ànde mooy ci kanamu kii firaxatul amal waxu wattil xas ñaar yi bu doon ci tubaab dañuy wax task force wala une force opérationnelle amul domaine ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam am xare boo xam ne da koy jóg di ca jëm di leeral nit ñi la mu doone si waa muta muta rek moo ci bokkuloon ne muta distance ba taxoon te dafa ëmboon merum fayul jaafar fayul sayid euh, euh, euh, sayid waaw Eh, ibn Haris Sayd al Haris de Rawaha ñaar ñaar ñaar ñee ko gën a waaw ñee Sayd la doon bëgg gën a fayul ak ak ak ak eh, Jaafar tudd ma nag eh, Abdullah ibn Rawaha ñaar ñooñu daal xam naa ni moom ñoroon na ko waaye musta avertir nit ñi ci lenn kon ñun dañuy force opérationnelle boo xam ne amuñu domaine lu dul li nga am booy tudd rek ñu mën nañ ko fi saat temps bi dañ koy réduire fi saas rek lay doon kon loolu amuñu domaine lu domaine bi xóot xóot bu ñu boo ko bëggee rek fi saasa ñu nekk ay spécialiste fi ñu nekk ay spécialiste Mbàkke li ma ciy dolli xam naa waxtu wi tënk nañu li ma ciy dolli mooy si aatu waxoon na ca bañ demee Ndakaaru ne diggante bu tarxiya diggante isbu tarxiya ak masaalikul jinaan wala nuuru daaree ni wala mbooloo mu mën a doon amul barrière ñoog ñoom ñooy dongo yi ginnaaw ñooy dongo yi nag kon dongo bu ne sañ naa soññ boppam waaye sañ naa soññ moromu taalibe ñun nag dongo yi fi ñu toll nii li ñu doon soññante buñ ko waxee fii ci kanamam di ngeen ko mën na nangu xam nga keroog bisu oxot li tax jullit ñi jàkkaarloo gannaaw badar naafeq yi dañoo ma ñëw madinatul munawwara dugg ci lislaam ngir mucc ngir bëgg jàmm sunu borom déclenché oxot bi mu ko déclenché ñu am victoire wala ñu am échec taxutoon ñoom dara ñoru ko ci woon ja wan wan yonent bi gaa yi àndal ñan la mille personnes képp la am juróom-ñaar téeméeri li mu ndax ñetti téeméeri yi dañoo ñëw ba ci terrain xare bi ñu war ko ñoom ñëpp mu jël ñeent fukk ñoo xam daleen wax ni ak lu mën a am lu yàgg-yàgg lu dul man man nii wax leen leen taxaw leen fii te bu leen fi bu ma dellusiwaat leen ko wax nii la ñu lii lañ doon soññante ñooñu gannaaw seen jaayante ba ñu jëkkee def ay tiir tëdit lañu ñeent fukki nit ñoo xam ne du ñu mooy ci seen fet mbat na se waaw dinañ ko yeggale kon ni ma ko doon waxee léegi ci oxot ji rek nga xam ni ñaari jàngale mën na caa daal di génn bu jëkk ba mooy noo ngi nii waaye am nañu ne ci suñu biir te li ñu wax fii ak li ñu wax fii bokkul ñooñu génn nañ leen waaye nag ba tey ñu des di jaayante ñu jox ñu ndigal nañu yam leen fii bu leen ko weesul àdduna yàgg-yàgg bu lu ngeen gis te du man mi ma waxaat leen bu leen bu leen ko def waaye bi nga xamante ne lañ leen doon defloo man gañ ko man tax na diir bu gàtt lañ am waa Quraysh seen wëlbati tàmbalee daw bàyyi alal yi seen benn làpp ca alal ja ñu commencé nag di rocc ko bëgg koo daw ñu doxee leen ginnaaw song leen sur deux fronts kon loolu lu mat a bàyyi xel engagement bëgg dara ji ak bëgg njariñ baaxu ci wax li nga wax jàkkaarloo rek fokk ñu confronté wu nattoonte ku ne jam sa morom paaka ñu xam ki wax tëgg ak ki waxul dëgg sëñ Tuubaa mës te santaane lu jëm ëllëg ñeen nag yéenay ñan ñun ñii mag yéen nun nooy wa ansaar dellul ba une nga xool bi ñu génnee nga xam ne li Sidna Abbas defoon sax ba mu yéegee ci tund wax xool gaa yi julli lim bi eh, jay ko mu ne at ah, tey de moom xam naa lu ne maanaam waaye bu dee lim rek da tey dun daan ñun dun def loolu bi nga xamante ni xare bi song nañ ko mu dem ba ñu jóge woon màkk bëgg dellu biir màkk ñu jóge woon Medina amuñu fuñ jëm làqu ci ngeer yi bi mu waxee si naam si waxal la nga xaman moom nga waxoon ca badar wax ko ca ca astafla waxoon ko ca xare yi jiitu woon waxaatal loolu man mi may ki ñu yónni ci dëgg wax ko bu ñëpp dégg bi muy wax mu ngi mel ni fii may waxee fii sama njaaram nga di ko dégg dañ ko rof leneen lu bokkut ak la woon baat loolu bi mu ko bi mu ko defee ba xare ba jeex maa Malik ibn Awf mi nga xam moo jiite woon Bedouin yi wër Màkka yëpp daanu daw dem dugg Taïf ñu assiégé ko biñ ko bi as bi assiège bi jeexee ñu xam ne duñ ko man ndax booba su neen dafa gént ne ko si naa bëkkin firil ma ko yow de daa nga firi génn mu firi ko mu ne kon assiège kii ñi duñ leen mën a wàcc nan dem ca lañ dem jaxriyaan commencé nag di sédd di di di waxtaan ci ci ci alal ji ñu def ko Malick ñëw daanu si tey fu wàcc foofu li ma li may wax yëpp histoire yéen mu gën a xam waaye li ma bëgg a wax mooy na ngeen xam ne ba mu séddalee ñi nga xam ne seen gëm booba day soog a yees rek tam bañ ñu seen ñu dem am na ñu jóge ca waa ansaar dañoo dañoo bet beru ni koy kat yaakaar na ni seddale bi am ca ku ñëw ne ku dëgër bët ni ko seddale bi damay yaakaar ni xanaa euh, euh, mënoon naa dem mu ne ko defoon naa ni yéen xam ngeen ne bu kenn dong dem na seddale ci àddina mën lay doon keneen ñëw koo xam ne mag la gëpp ko ëpp ko xikam ñëw wax ak moom ba noppi ne ko gars yi dañuy ci tuuti ndax boobu benn ansaar bu mu jox pikini laa wax du fas du gëléem du xar du dara bi nga xamante ne nag kooka ñëw na ki mujjee ñëw di wax ak moom da ko nan ànd dem fekk ji gaañ bi mu ñëwee ñu toog mun leen yaakaar naa ne yéen da ngeen wàcc seen bopp mu ba toll ak ñi nga xam seen gëm dëgëragut te nga xam ne laata ñoo song xare bi képp maa ngi leen di teral bi ñëwee fi ma leen teral te gën a dee ci ñoom am na lu ëpp ñaari téeméeri gëléem ak ci ci ci ak yi mu àndal mu ne ñoom amuñu dara mu wax leen ni leen man de yéen am ngeen man ndax man de bu ngeen doon ñibbi da ngeen may yóbbaale te ñii ngeen di jàpp ne tey jii kat ñoo am lépp man ñoom man rek lañ am waaye nag na ngeen yëg tey te ngeen yëg lii ñu murit yi wax keroog booba la woon caw neen la woon mu ne leen lii ngeen lii ngeen lii lii ngeen xam ne moom yéen ñii man yéen la am kon kii ñun la am ñun ñii la am te li mu bëgg mën nañ ko ndax bu ñu amee rek ñu doole ñu ci lépp ca yow ma uneen la te ki ñu taxawaloon uneen mooy kan gaa yëpp daw ñëpp a daw il faut lu ne da koy wax na mu tudd dañoo wëlbatiku mu wax si naabaas wooteel mu woote bi mu wootee ñëpp génnaat ñëw fekk fu mu taxaw sunu borom daal di wàcce malaayka yi def ay xar baax ñu gañ xare bi waaye waaye loolu loolu wane na ko udey bi te doon ab xare lu doy sëkk sidna Ibrahim sidna Jibril da koo guufaan wax ko ni ko doo dem tey kat mu ànd ak moom gileen nga ñu yës xam loolu ñu naan la bu ñuy signé yow contrat tey dañ naan Mouhamed Ibn Abdoulaye ci lañ la xam mu nangu ko kooku ku mu yar nga dem xare Badar même chose foo xaybar loo tudd loo même chose lépp lépp moom ki mu àndal la koy def kii nag dafa ànd kooku ñu amuñu xam amuñu xel ñu lu li nga bëgg rek programme yi dox ci dëkk bi yëpp ku bëgg a xam suñu programme bàyyi la nga jàpp te ñëw ci ñun loolu li ci des li ci des lu ñuy ñuy yëngal la ak njàngum tubaab la ñu fi nekk kenn ku leen ci man amu ci waaye dañ ci amut soxla li ñu am soxla mooy sëñ Bamba ok jërëjëf kon defe naa ñuy joxe ñu déglu ndigal li ndigal li mooy sëñ bi dafa wax ne sëñ aatu na àggale kàddu yi mu doon wax ñu julli kon nañ julli te toogaat kenn ku ne fa mu toog lay toogaat bu jullee incha allah kàddu yi tontu door ñu door ko def njëkkal jekkal sàppe yi bu kenn jógee fi nga toog di soppi dem feneen waaw na jub na ñëpp jublu la rek sëriñ bi ne na ñëpp jublu xibla